sëñ bi ñu leen nuyu di leen ziar. ñu ngi dolli ziar bu wér a wér. tur bi la. Papa Laye. Papa ñu gis ne léegi ah, Macky Sall. dafa yokkaat affaire yi tëj soirée yeeg ak mbépp daje ñu laal loolu nan nga ko gisee. a ah, ni mu ko gisee moom loolu moom maanaam bu ko defee xalaatam rek la defa parce que man dama jàpp ni sama jëmu bopp doomu adama fii ko fi yandu suñu borom la neex nit lekk na ba suur faatu fa yàllaaw am na wala amul d' accord couvre feu bi man benn côté neexuma muy lan ñun tooguñu ci biro kenn joxaluñ suñu dépense su gaale yow tu as bien préparé mais nu ñoo ngi nii wéeruwuñu fenn suñu borom a ñuy jox ñu daw di daaxante magat maan yaa ngi nii chauffeur yeeg sëpp ñii di daw versement jàmbur comprendre nga yow bu sa lépp pare te sa entourage ñi nga xamante ni ñoom ñëpp nice ñun ñu ci ginnaaw ñun pareegunu war nga trouver beneen solution quoi. yokkaat boobu dafa métti ci ñun ba dee. yaa ngi dégg li ma la wax bu baax yokkaat bi métti na ci ñun trop ndax loolu arrangé wuñu ndax ñun fi ñu toll nii sonn nañ dans 15 jours yi ci kanam rek kenn ku nekk rek li nga yoroon ci bagage wàññiku na bu baax a baax wàññiku na trop trop trop trop ba amoo loo yóbbu sa kër sa kër dañ lay woo téléphone doo mën a yóbbante dépasse li ngay joxe fii dépasse luyaas danga nga koo war a fay munoo koo fay da ngay avance borom di ko daw suba ngoon xam nga loolu métti na lii ñuy daw nii ci la ñuy jot sunu njaboot. léegi marché bi bu ñu ko tëjee ñi nga xamante ni ñoo war a jëndantee ñun ñoom dañuy teel a ñibbi instant yi ñu ngi jëkkante oto xam nga loolu métti na léegi su ko defee ñun ñi nga xamante ni ñooñu lañ war a jaay ñun duñ leen mën a jaay ñun buñ jaayee benn ñaar téeméer wala benn ñett téeméer wala benn junni buñ ko dépassé mu jeex bu yàggee ñun suñu bagage day jeex ñun dootuñu am lu ñu yóbbu suñu njaboot te ñun ci àll ba leen dëkk dañoo ñëw fii rek di góorgóorlu mais dëkk ñu Ndakaaru waaw loolu moom sant yàlla la ndax lu tax ma ni sant yàlla euh, nguur kenn mënul xëccook moom surtout président de la république loolu la ñu wax comprendre nga dëgg la du yàlla du yonent yi waaye moom lañu fi teg li mu mën a euh, maanaam li mu tëral rek si réew mi si loolu la mën a sukkandiku waaye ah, man li ma si gën a yokk mooy li li ñuy defal avantage la si population bi yëpp man ko avantage la maanaam ci moom tamit ndax tey euh, bépp fànn boo gis rek bu dee ndog-ndog la wala muy bànneex si moom lay njëkk a dal doo ko dal ci jeunesse bi waaw ah, man li ma ciy doole rek mooy moom mu yëg ko mu bañ ko yëg kaaraange bi dafa des surtout couvre-feu boo ko xasee ba wax rek ay fay yu bëri day feeñ agression yi dina bëri xeex dina bëri dépense bi dina metti comprendre dañuy daw safa ak marwa loo waroon a jël sa temps benn dootoo ko amati lépp rek si maanaam si activité yi. instant bi dëkk bi dafa métti kenn ku ne fu mu doon yëngu buñ ko ko tëjal nañu jël mesures barrières yi ñu nit ki war a jël mu jël ko dem nit ñi liggéey parce que instant bi dëkk bi dafa métti dëkk bi instant bi pour nga am fi benn 5000 wala benn 1000 francs a lay tey ñaankat yi ñu ngi gën a yokk Macky Sall nañu dimbali ngir yàlla ak Rasul xolal mu tijji lépp. ñëpp mun a joob même boo joobee tamit nga gëstu benn mbokk boo xamante ne joobul tamit day métti si moom quoi dëgg bi daal métti na nañu dimbali rek mu tijji lépp ñëpp ak ñëpp dellu si seen i liggéey. te ñaanuñu yàlla dëkk Ndakaaru ñun dañoo bëgg delluwaat ci àll ba kon instant yi képp ku ñu bëgg a dimbali rek da ñuy jàppale ci liggéey bii ñuy liggéey parce que rassemblement bi mënut a ñàkk ndax oto yi dañuy fees baar yi dañuy fees jàkka yi dañuy fees mais buñ ko wëggee dañuy tëj dañuy tëj lépp jox nit ñi lu ñu lekk jox nit ñi lu ñu naan ñu mën a toog ci kër yi ku feebar ci kër gi nga mën koo yóbbu hôpital xam ni kii dafa feebar dafa corona lañ wax nga ñëw jël ko yóbbu ko hôpital ñu faj ko wala ñu téye ko fa yéen ñi nga xamante ni feebaru leen ngeen toog ci kër gi mais ñun feebaruñu ñu bëgg ñoo téye amuñu ñu jox suñu njaboot te ñoo nga dëkk ci àll ba bay lañ yaakaaran li ñu bayan lekk nañ ko bu yàgg. aussi tamit na nga gisee heure bu jotee nit ñi xa nga war a dem fi ñuy ñibbi bi difficulté am boobu noonu nan nga gisee en tant que sénégalais. développement en tant que sénégalais sama bopp laa koy njëkkee man damay liggéey nawet bi keroog damaa guddee heure bi jot àndutuma sama sago di def ba man dañ ma mujj agressé di sa téléphone ma yor mën naa si ñàkk sama bakkan tey bu ma amoon temps bi maanaam loolu du am surtout heure bi fi ko aj dafa xaw a sori depuis 9h 9h la wax 9h ñëpp fatu léegi am na ñoo xam ne duñ fatu comprendre nga. ñu mu teg ci bunt bi ñoom fenn la ñu mën a assurer mooy tali bi tali bi la ñuy assurer waaye mun ñu assurer ruku yëpp kon tey ñun ñu ngi si ay difficulté yu métti métti métti métti mais loolu moom buñ fi mënee dimbali dem ñu ko teel a saafaral ñun mooy suñu kaaraange quoi. boo xoolee tey jii ki nga xamante ni day dem ba vingt et une heures ah job ba vingt et une heures war a am lu mu fortaatu yóbbul ko njabootam ah yow du yow yaa yëkkati sa poos nga jox ko vrai ou faux ok joxoo ko ko benn teg nga teg nit ñi benn fitna boo xamante ni comprendre nga baax ñu ci bëri bàyyiwuñ ci xel parce que yow tey jii bu fekkente ni yaa ngi yaakaar weer ba weer am koo xamante ni liggéeyul ci bureau toggut ci bureau yaakaarul kenn ku dul suñu borom ay kulusam lay yor di daw fii di dor daaxe di jaay boo amee ñett dërëm yóbbul ko papaam ak yaayam ah? kooku boo ne ko heure bi ngay tudd da nga koo pini. non bi day metti quoi metti na trop trop trop trop parce que boo xoolee heure bi gars yi liggéey fii mooy loolu daanaka heure bi gàtt na ko heure bi waxuma la dara mais soit bala nga am oto pour dem ci banlieue bi sax da ngay am problème ko xam nga bu ñu sañoon daal xam nga ñu def ko ay 22 heures wala 23 heures quoi man sama xalaatu bopp loolu laa gisee ko parce que affaire bi metti na ko dëkk bi metti xam nga. affaire bi ñu ngi koy dund depuis un an ñu ngi koy dund quoi affaire bi metti na dëkk bi doxul xam nga mënoon nañoo bàyyi rek affaire bi a man sama xalaatu bopp quoi bu man gars yi toog sol masque quoi ñu bàyyi couvre-feu mu dem gaa yi dóor gars yi gars yi gars yi liggéey quoi parce que dëkk bi metti na quoi wax dëgg yàlla loo yóbbu ci njaboot gi sax da lay të quoi. loolu moom dafa metti quoi parce que instant bi sax transport bi doyul nit ñi dañu daw di xëccoo ndaga njaay yi ama métti na président bu si mënee jàpp na si jàpp quoi parce que instant bi moom bu ñu mënoon yokkal heure bi sax ba ay 23h wala ñu jël quoi parce que dëkk bi dafa métti. ñu gis muy def couvre-feu vingt et une heures est ce nekkul suba gi la nit ñi di gën a dajaloo ko guddi gi. waaw loolu moom dëgg la nit ñi moom xoolal fii moom foo mënuñu bañ a dajaloo parce que mooy amuñu nit ñi ay ndaga njaay la ñu dugg ak car rapide mooy loolu foo loolu mun a am quoi mais ak lu mu mun a demee rek nañu jël mesure barrière bi bu baax a baax a baax ñu may nit ñi kenn ku ne foo bëgg a dem nga dem foofu quoi. nañu yokkal couvre-feu bi instant bi def heure buñ koy def nii mooy loolu arrangé wuñ man pour man sax man couvre-feu bi man moo amul amul amul amul amul njariñ daal parce que cas yaa ngi gën a yokk kaa yaa ngi gën a yokk décès yaa ngi gën a yokk dëkk bi et puis mooy loolu waaw dëkk bi dafa metti amul xaalis lii daal man pour man day du yëkkati koom-koomu réew mi quoi da koy wàññi daal. waaw heure bi de daa gàtt daa gàtt trop fii ma toog nii fii fii laa toog parrainel Macky Sall bi ma koy parrainel fii ñu bëri ñu ngi naan ma lu tax nga koy parrainel te ba léegi. maa ngi ci waaye heure bi dafa gàtt vingt et une heures bu doon vingt trois heures sax mu tane yow instant bu fekkee dajaloo la oto yi nit ñi buñ xëyee ak bu ñuy wàcc loolu moo gën a métti buñ ko puusoon ba vingt trois heures sax amul problème mais vingt et une heures bi dafa gàtt te amul benn benn sens bu mu def. ku fee moom bàyyi dafa métti trop parce que gars yi bëgg liggéey xam nga yaa xam te am ñoo xam sax maanaam seen heure liggéey da lañ koy yàq am ñoo xam ne maanaam carrément guddi gi liggéey donc loolu maanaam arrangé wu leen parce que am ñoo xam ne guddi gi la ñuy liggéey ak ñoom bu dee a jeex quoi benn xam nga. gisoo ko n'est-ce ñun sax ñun suñu xel dalul barke yàlla wóor na yàlla te ñun ku ñu xam rek xam nga grave nu demee dañuy yàq suñu der foo munti dem dañuy na Grand ay bande ñoo fa dëkk affaire yooyu mais xam rek couvre-feu bi nga ko jafee ba tey Grand Yoff mooy njëkk a tëju xam bañ ko ñu yàpp quoi surtout dara ba dara sax nañ ko may loolu xam nga déglu ko baaxo moom mu diriger dëkk bi quoi xam nga jox ko cër bu moom mooy yoon sax ñun fi ñu nekk nii magat lañ nekk ni ñu gisee ni dara doxul kóoli ngay gis ni nii ñu ko jaay mooy loolu ba tey barke yàlla dañuy jéem a jaay ba sonn